Euh, war na laa manqué de Thione Seck. lool ndax dafa nekkoon nit bu utile utile nag du matériel xel wax comportement ànd gor utile dafa yaatu moom nit ku utile la woon te loo gis mu ñëw rek waxoon na ko naa an déjà newoon na lu nuyoo tàggoona wax na ko ñu koy yokk ñaanal yàlla leeral ba melam yóbbu ci daw si ndax jëf na ko nag jëf na ko jaamu jaamu yàlla la jurit ak xam la musique nag boo ko tuddee day niroog euh, du la jox portrait wu nit ki dëggantaan ndax noonu lañ jàppe musique rek waaye moom daawul tëdd ci lal te julliwul bu joaan ba pare fekk julliwul fajar ndekki du tëdd ci daal bu tëddee pour deux heures bu ñu noddee mu jóg julli. nee nga nit ku util la yan qualité nga gën a euh, nga xamaat ci Thione Seck. dafa bari yërmande gaaw a jooy euh, yër yërmande bi foo ko takk weesu na ko ba pare nag mu nekk nit koo xam ne kii dafa jub ba defe ne kenn du wax lu dul dëgg ku nayif la woon ku yomba nax ndax moom defe na ne ñëpp war a dëggu. ñëpp ni ñëpp ni moom lañ mel. kon aussi ku nit ñi bañ a comprendre ndax léeg-léeg position yi mu doon jël euh, du ci woon d'accord ak ñu bëri yow loolu mën nga ko séddee. waaw loolu dëggoom moo ko waral dama lay jox exemple bu duggoon tey ci benn salle fekk ñu koy jëw xam nga nit populaire la. il faut ñu wax ci yow moomoo sa bopp. fekk ñu koy jëw ki mu fekk mu koy jëw du ko nuyu daf koy tëb noonu la yàlla bindee même même journaliste yi yéen journaliste yi ku ma sa bind ci moom dara du la nuyu am na un jour mu am benn journaliste boo xam daf ko may ñetti costume jëndal ko ko ci ëllëg sa rek kooku bindal ko ay yëf dafa yor paaka di ko wër looy laa ko wax pour moom ni mu mel il était entier ñu nettali tuuti coon nan la la yëgalee ni tuddee na la doom. Eh, moom waxuma ko nit ku nekk état civil moo ma ko wax dama bari xarit ngénte nag dafa siiw ndax coon dafa siiwoon temps yooyu coon day ngénte coon day ngénte alors kooku ñëw ne ma coon yow lay tudde doomam ma ko ah bon mu ne waaw gis ma ñaaw njort parce que moom lu muy def dana ma ko wax te waxuma ku muy tudde doomam ma gëm li ma ko wax ma préparé. waaw ah, mais eh, ñëwaatal ci sa diggante ak Thione Seck eh, kañ ngeen xamante parce que yow yaa war a mag Thione Seck. mais ah, waaw mais nan ngeen xamante. Eh, man de tout le temps dama mës a am ay artistes yàlla dafa def artistes yi bëgg ma. laay mu doon sama xarit laay mu doon sama xarit di ma woy di tourné lu ma xew la mu ñëw ca moom ñoom Ndiaga Mbaye ak ñooñu ñëpp sama nit la ñu moom mu nekk xale nag am qualité yi mag ndax dafa diiñoon bari jomb-jomb léegi nag laay bu xool ko mu bëggal ko boppam def ko doomam di ànd ak moom bu woyee mu aw ko baat bu ndaw ba mu nga daan dégg ci laay bu moom la woon laay xam ne am na potentiel ci moom xam ne coon nii fu ko defar dana dem léegi nag ñu dem ba yàgg ñu gis baatam te nit bu awul wala liggéeyul ñu ñu rek client yi dañ koy sentir léegi nag laaj bi ne ko léegi wutal sa benn morceau ñu ne koy tëggal benn bés benn ñii ci baar bi ñoo daal di ma daal di may ne grand ma ne ko am ah, ne ma coon mi ngi mi ngi répété morceau yow la ma ma ma rek noppi ba benn soirée ñu yow dem rek moo yooyu boobu Issa Soxo moo njëkk a ah, <laughs> lii. wéy Lamine fi nga jaar ko fa jaar tax man eh, naaru Mari Fall ku la séddoo gañe xool laa gis naa loolu lay na bi ñaata ñaata nga ko jox loo suñ diggante am na dama dama meloon ne rakk ñoo bokkal ne daal na koy teral ci àddina te bëgg bëgg mu baax bëgg mu nekk am yéemu ma jox dara man man ku ma am yéemu maa defal yow dara boo demee ba gis après carrière bi coon am mu dem ba def ci benn euh, album boo xam ne orientissimo ah mu am benn succès bu mag ci àdduna euh, yow euh, boo fàttalikoo si débuts nga xam ne yow la woyoon nga gis œuvre musicale après bi coon Seck def ah yow loolu lan la lay def waaw loolu dama ciy kontaan parce que bu doon football la dama naan dugal la bii ndax coon ñëpp a nangu man wayam waykat yee ko wax Youssou Ndour nee na Thione Seck moo mën a woy Kiné Lam nee na Thione Seck moo mën a woy te ñooñu mënu leen a nax mais ñi daq woy ñii nit ñi ne ñoo dàq woy ñoo ne Thione mën a woy gisaguma ku ne Thione mënul woy ñëpp unanimement ñëpp a ko wax euh, am na un jour ma toog kër El Hadj Bassirou Diagne muy woy Bassirou Diagne ma tekk di ko déglu mu ne ma xale bi phénomène la de Bassirou Diagne Marème Diop grand sëriñ de Dakar dafa toog ci saala bi ñuy waxtaan mu bi rek télévision bi teg coon sec mu déglu parole yi coon wax mu ne gis nga boo gisee ñu tere panaal da nga daan gis gor gu ñu wax attanoo liñ la wax nga jël lañ la dénk bàyyi ko ñu tëj ci kaso bi mu ne moo tax tubaat yi ñu ngi tere panaal yow ci œuvre musicale coon sec ban woy moo la ci gën a mag ah, ah la bett na ma parce que daf ko way xaritam loo xam ne daf ko wóoroon ne xarit bi di nga gis ñaar nit ñuy ànd yow ci sa expérience nga xam ne dañu xarit ndax dañuy wéddi jëwante waaye ba leen ci gën da doon nit yi coon pire ko téqatal du bi nga ndàngam ne dafa bëggoon coon coon suñu ne ba ma yëkkatee père ba tibb suuf laa xam ne ñàkk naa sama waajur mais loolu loolu loolu loolu lu ne la. mais yow nan nga nii coon euh, euh, fekki na Blindé Jigéen. loolu moom damay nelaw sama ma dama naan yéema nga wa waaye maa ngi am yu may déglu mu ne mi coon sekk dee na de non c'est pas possible ma jóg woo Waly ne ko alors mu ne ma ah, xanaa da nga dégg nouvelle bi mu ne ma ah, sama papa de lax lañu noonu laa yëgee gën. xool ma mu nekk bés bu métti ci yow. waaw mu nekk bés bu métti parce nag da doon nitu valeur koo xam ne ku ko ñàkk di ko yëg. ci sentiment ci ngorom ci bëgg lu rafetal te. ñaaw bu naree ñaaw dee ko gënal bu bu buggul dara lu ñaaw buggul dara lu ñaaw coon bu ñëwee këram fekk xale yi ay ay ay ay bintu rasul ay xale yu ndaw muuruwuñu julli mu dóor leen ne nañ muuru julli ñoom ñëpp daan muuru julli jotee jàpp ku mën jàpp ku mën jàpp xale yu tuuti même bi ñoom ay Babacar ak ay ñooñu bi ñuy soow a fer wala yooyu rek dañ daan dégg ba coon di ñëw ñu taxaw ne lii julli xam ñu lii julli sax mais coon bu ñëwee da leen di may pièce leen encouragé. maanaam yar na njabootam. ci diine da doon dund ci diine da doon ci diine yar na leen coon amul doomu réew nit ñu ëmb lañ. am na benn bés mu bu a yóbbu yaayam màkk ñuy waxtaan moo ne ko waaw coon kan mu ne ma bu ma bàyyee woy ci samay yooyu ma ci woyee yóbbu ko màkk mais man sàngara du ma ci yóbbu sama yaay màkk. ma ma ma jaaxle ma dem ci benn jigéen bu tudd May Rawane député la woon nekkoon na fi ministre may waxtaan ak moom ci waxi coon ma ne ko coon daal coon dafa mystérieux ci affaire oon naan ci boîte ma mu ne ma ah. yaayam màkk yow euh, ban euh, moment nga jékki-jékki gis Euh, maanaam Thione Seck changé xar kanam euh, maanaam mu soppeeku am nu mu mel mu jaaxal ci ban moment nga gis ni kii am na lu ko metti waaw ci ci ci deux ans yi mujj ci àddinaam rek ndax Thione day borom jom lool ah day borom jom lool mais gis naa ne am na ndax day bëgg wax dara yaa muy cax bopp du wax mais nit tam seen doo ko gas mag la damay xam ne am na lu ko soof wala lu ko naqari wala lu ko bett. waaw xanaa sa kàddu bu mujj rek pour jeexal. kàddu bu mujj daal mooy ku dégg ñuy defal hommage Thione nga jaax ni fukki Lixlaas ak benn ak salaatu ala bi yónnee ko Thione ndax daan na ko defal ay nit jullit lañu ay xaritu euh, catholique dañ koy ñaanal jooy bay bëgg a dee am na ci ay xarit yu bëree bëree bëri. L'un des grands par paroliers de l'histoire de la musique sénégalaise, Moum Thione Seck.